lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko muhammad sallallahu alayhi wa mbokk yi ñi ngi ziar di nuyoo en tant que certainement président du mouvement pour la renaissance sénégalaise di jàppale son excellence le président de la république Macky Sall di leen nuyu di leen indil nuyoom ak ziaram di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo bokk teew ci jotaay bi di ca jiital surafaaw yi nga xam ni ñooy dogati yonent bi sallallahu alayhi wa ñu war leen a jiital ci lépp di ci teg ki nga xam ni si tey ginnaaw yàlla moo waral bis bi moo waral jotaay bi doon itam ku ko mérité Mouhamad Al Amin lii li olof yi wax du chance mérite la te yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam balaa ren di déwén ñun ñëpp dinañu biir leer nañu liggéeyal yonent bi dong mooy li ko jar biir ak biti maa ngi nuyu di ziar sama jigéen sama sœur Seyda Habsa Fall di nuyu di ziar sama mbokk sama xarit sama doomu day oustaz Omar Seck di leen ndokkeel ci bis bi di ndokkeel ñi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi yépp di wax Seyda Hafsa dafa mel ni dafa am xaal bu ko dikkal ndax li xew léegi daanaka kenn dañu àgg ci mënatuñ ko xam lu mu doon dafa mel ni diine ji ñi ko war a défendre te yonent bi ñor leen dafa mel ni ñor gi mu leen ñor dafa am fu mu commencé am fu mu yam te loolu war naa mën a jeex ndax ñiy dox leneen loo xam ne du yàlla du yonent bi dafa mel ni dañoo nar a ëpp doole firnde bu ndaw rek laa ci indi ndegi ni démb waxtu wi wala wu ko gën a guddi am na xew-xew yu am foofu day ay centaine de millions ñoo fa wàcc ay moyens yu bari lañ fa déployé loo xam ne lenn du ci yàlla du ci yonent bi maa ngi jéggalu ci nag ñi nga xam ne ñoo ko organise ndax érigé wu ma en donneur de leçon mais dama foog ni bu cër waree am Moustapha mi nga xam ni moo tax ñu am xew ba naan xew ba jariñ li am ñu mën koo joxe ay ñoñam lañ ko war a jox léegi seydaa dafa am wax ju daw yaram ju mu wax dafa wax ni oustaz Mohamed Alamine gis nga coono yi muy daj ci prêcher gis nga mi ngi ci tele bi mi ngi ci rajo yi ànd ak loolu yépp dafa mujj leer ci sunu bopp ni kii li muy def yàlla dong ak yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko tax a jóg ndax su dul woon loolu am na ci lu ne ñu ni buy déplacé wu taxi lay jël kon dafa mel ni moom dogit la ci mag ñi nga xam ne daan nañu dox di jàllantu dëkk ak dëkk di yóbbu tur yàlla ak yont yàlla muhammad kon jot na ci ñun ñëpp ñu àndandoo takku taxawu ñi nga xam ne si ñoom ñooy ñuy dimbali ci njaboot gi di ñu dimbali ñun suñu bopp ndax ñi ci ëpp suñu diine dañu koy jàngal di ñu ko xamal di ñu ko nafaral di ñu ko wan ci télé bi di ñu ko wan ci YouTube bi ndax mu gën a jàppandi ci ñun te yéen yéen a jiite loolu kon bu nit ñi di def lu baax yaakaar naa ni ci yéen ñii lañ ko war a njëkke ndax dafa am foo leen ñu féete ñu war leen féete fa ca des incha allahu rabbul alamin man de li nga xam ni doon na ci sama cër muy information bi ak ci président de la république son excellence Macky Sall koo xam ni kenn du ni diine ñoru ko ndax mi ngi ciy sonn mi ngi ciy def lépp lu ma mën ci ëtt këru diine yi mais léeg daanu dajul suuf léeg-léeg information bi fu mu war a àgg du fa àgg ndax tey su waree def ci diine ji yaakaar naa ni jëmm yi toog ak ñu mel ni ñoom ci ñii la war a commencé. lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko